nii rek. waaw voilà beneen affaire tout ça c'est de l'art. c'est de l'art. tout ça c'est de l'art. c'est de l'art. montre bi lii yëpp. benen affaire ni waaw c'est le monde. yow xam nga ko. c'est le monde xam nga ko. ce qui fait l'heure. oui ça tourne. benen affaire la. Adama choix bi nga def. dafa noble. Uh-huh. nga jóge France ñëw investir Sénégal. Uh-huh. orchestre bi nga créé. Mm. andi matos. waaw lutax togo toogoo nga def ko foofu lutax nga ñëw fi Sénégal d'abord idée bi. d'abord idée bi idée ça date pas d'aujourd'hui ça date des années parce que idée bi du man on peut dire que y a mais il dafa am fu ko parce que à bi man dama concept euh, il faut toujours toujours toujours réfléchir il faut toujours retourner la tête il faut toujours penser hier. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, on le fait. On, on peut faire aujourd'hui grâce à hier. Le passé, les, souvenirs, les bons souvenirs, les mauvais souvenirs aussi, ça fait l'homme. Parce que les mauvais souvenirs, ça te permet d'être solide mentalement. Parce que li indi lii tey avec mon moo et indi Ablaye que la ak euh, sama nijaay Il y a daf ko parce que je suis dama nekk xale bu ndaw nous faisons fekk musique xaw ma luy musique xaw ma sax luy musique di parce que tolloo ko la ci xam ñoom ñu jël ma teg ma seen wet fu ñuy dem di ma ko di ak man responsabiliser ma ma nekk bu ndaw nag conscient ci loolu bi ma conscient ci loolu yàlla dogal ma tukki bi ma tukkee ñëw fekk leen musique ma xam ne bi moment euh, nit soxla wax bëgg wala ci nekk pour nga koy soog pour man sama concept mooy nit bu demee ba ne la dimbali ma rek mooy que ni sonn na xoolal nit ki li nga ko ëppalee rek. nga dimbalee nga ko. te dafa am ñoo xam ne boo leen dimbalee boo leen defalee defal nga sa bopp boo leen defalul defaloo sa bopp parce que ñoom yow la yow ñoom la ki nga xamante ne yaayam ak sa papa ñoo bokk ndey ak baay kooku dem bàyyi ko mënu dem bàyyi la ki nga xamante ne sa yaay la muy sa nijaay kooku mooy sa papa mooy sa nijaay di mooy sa yaay. kon kooku mënoo dem bàyyi parce que kenn mënul dem bàyyi sa yaay ñooñu nag bu fekkee ni ba nga nekkee xale dañ la jël seen kaw nga dem tey ba affaire bëgg encourager dafa moo leen encourager sans commentaire da ngay agir def. ñu gis ñu xam ne affaire bi du yéene parce que des fois da ngay yéene bëgg naa def lii ah jot bëgg naa defal lii de tel date daal dinaa jéem a def lii mais est-ce que yàlla dina ko yeggal li neex mooy nga dajale ba mu mat ñëw rek teg ñu gis mu bett leen ñu xam ne kii lu mu yàgg yàgg ndekete li mu dem dem yëpp xelam mu ngi ci fii mu ngi ci ñoom ñoo ko liggéey parce que doon na am comportement yi ñuy am ak man peut-être loolu du am kon ñoom dañ ko liggéey yàlla mottali ko am na xel bu ndaw bu mu def ci man rek ba lii tey am ma am sama yéene indi ko te nag c'est que le début le commencement def naa li ëpp solo ci kanam dañuy ñaan yàlla gën a yaatal parce que talent bu fi nekkee après da ngay motiver nit ki rek gunge ko moy expérience bi ko ëppalee mom bu la ëppalee mu jox la ko yow bi ko ëppalee nga jox ko parce que expérience du xalé du mat nit mën nga ko mën nga ko jur sax mo ëppale expérience di jangal jàngal taw léegi euh, lay euh, limu la màggee bari na. Mhm. peut-être ba nga nekkee xalé ñaata at la def ci musique lay ba nga koy fatale ñaata at nga am say at at yi mu def ci musique. man man bima fatale ko 2012 la yex si yoon dama ñew fekk ko musique. ça veut dire que ni moom bi may ñëw 2012 fekk na musique avant 2012 peut-être ay 2000 ay non dama 92 dama 92 dama musique kon ça veut dire que ni 91 ay 90 yooyu fekk na ko muy musique di musique te dafa doon ànd ak sama sama mag ñu di ñuy jël ay pot di ay batterie di ci ci expliqué sama frère boobu dem ba France di rap ba musique sama ndijaay bii di musique amoon groupe am bi su jum jum ñuy musique muy musique fii moom muy musique fële bi ma ñëwee nag sama dernière vacance bële y a neuf mois ma ñëw fi fekk sama ndijaay bi toog di gérer maanaam amul woon sax mu gérer ma dem yoo fekk am laay toog këram di gérer di way di gérer ma gis ni li muy def nice na ma gis ni euh, artiste balaa moo gën a neex ay nit topp sa ginnaaw nga am bassiste am batteur am loolu ma ñëw waxtaan ak sama ndijaay bi ne ko dama bëgg daal comme yàlla defal na famille bi dama bëgg ñu gën koo yeggali gën ko defar maanaam ablaay li nga xamante ne yàlla may na ko yow li la yàlla may ñu boole ko buñ ko boolee rek jàppoo rek yàlla mën nañu may ndam tey foofu bi ma demee nag yàlla dimbali ma ay lu néew lu ma am rek ma bokk ko ñoom ñoom it lu ñu am rek ñu bokk ko ak man ci la ñu nekk nii nag di avancer ba ñu ngi organiser ñu léegi ñu war a lu ah, mu tudd ci samedi ci la ñu war a inaugurer label bi mooy John Bay Music groupe bi mu ngi tudd askan wi donc lead vocal bi mu ngi tudd Ablaye ci lañu nekk kii mooy percussionniste bi. waaw c'est le percussionniste maa ngi ziar jaajëf ba naaw ba mu naaw kañ.

ah de positif positiver des idées parce que dafa am solo parce que yow boo développé wul sa bopp doo mën a bokk ci développement parce que bu ñu naan développement yow doo comprendre fa ñuy waxee développement développement nag mooy nga xam say originalité xam li nga li nga am ak li nga mom ak li nga xamanteni ni yow du tay la démb la xam sa cosaan nga mettre ko en valeur lolu moy première pour man euh, premier acte développement ba pare développement mooy que ni bokk ndey bokk bàyyi bokk esprit ko gis-gis respecté ku nekk ay choix ku nekk ay choix am parce que ñun ñëpp mënuñu bokk choix te nangu tamit que ni fu nit fu ay doomu aadama tasee il faut mu am ku jiitu ñu topp ci ginnaaw amul du xale du mat du âge du dara yàlla moo koy def ci nit moo jiital nit ñu topp ñu ànd liggéey loolu yëpp pour man ci ay cadre développement la tamit am ay idées yu rafet jëm ko mettre en valeur jéem a génne say idée jéem ko bokk ak nit ñi pour man développement bi ëpp solo ci àdduna bi mooy loolu say idée nga bokk ak nit ñi parce que say idée bu desee ci yow kese yow ci parce que nit kese benn nit kese mënul développer wu benn nit kese mënul dem kon développement lii la yàlla jox da nga bokk ak nit ñi sédd ko ak ñi partager ak ñoom seen xalaat ñu ngeen xool ñi nga àndal mën a liggéey nga ànd ak ñoom ngeen liggéey développement am comme tey bu ñuy jël tey. koo xamante ni nii bu ñuy bu ñuy jël ci koo xamante ni tey exemple la ku mel ni Youssou Ndour il s'est développé il a développé aussi beaucoup de monde xam nga ci gëm liggéeyam gëm boppam gëm cosaanam parce que ku mel ni kooku ñun ñi suñu genre gi royukaay la ñu war a def da war a nekk suñu parce que développement rawul weesuwul nga am possibilité mën a dem dëkk Europe dëkk ko parce que moom conseil tourné la am Europe ñibbisi lépp fii la am kon lépp lu mu bëgg rek mu ngi développé dëkkam ci maanaam culture cosaan ak euh, way bi génnee ay di génnee cosaanam di génnee culture am ñooñu ñooy ay exemple adduna pour man képp koo xam ne rek eh, mu ngi yóbbu suñu culture muy jéggi frontières yi kooku mu ngi développé suñu dëkk di développé suñu cosaan loolu daal laa gisoon ci loo xamante ni ah yaakaar naa ko sama xalaat ci développement. macha allah léegi Sénégal bi nga xamante ne nii euh, comparé nga ko ak bitim réew parce que dem nga fa. Mm-hmm. valeur yi ñu am ak valeur yi nekk foofu. ñun lan la ñu leen ëppale ñooñu loo xamante ne ñun war nañ si roy tey ñu xam ne ñu dañoo développé ñu suñu bopp la ñu war pour gëm suñu bopp. Je ah, xam nga balaa sa da ngay xam li nga am xam say valeur xam ne ko am daf la ko may mayu ko ñëpp mettre en valeur mettre en valeur mooy essayer de le mettre devant parce que li nga am boo ko rek bu amul parce que ñun suñu valeur li nga affaire le plus important mooy affaire social living

lu mel lu mel ni noonu. Mhm. man yooyu laa tuddee ay originalité moom laa tuddee ay développement te moom laa tuddee que ni tamit ñun dañu am lu bari quoi dañu am lu bari xam am nañu papa am nañu yaay am nañu mag am nañu rakk mag jiitu rakk topp ci papa ak yaay doon kilifa ñu si des topp ci. ba pare loolu yëpp weesoo ñun ñëpp ñu ànd am ay kilifa. kilifa yi mooy ñun ñu baax ñu fi yàlla def mooy suñu kilifa ñun ñëpp ñun loolu mooy suñu valeur loolu rek doy na valeur dara du yëngu saagat du xeeñ dara du kii ndax ku nekk am nga kilifa ku am kilifa dara du yëngu man loolu rek laa xam ne am nañu loo xamante ne nii ci àdduna bi ba mu daj amul beneen dëkk bu ko